ba peer si yeer si yow moo gën fi yeer si dañuy raag ba naaw ni zaki zaki raag di geer si si pour la mën sekoon gis ni si lekk seen kase yéen ñëpp ndóol di ñaan ma deeni foog ma deegen mun fayeeku banaa tooñ banaa fayeeku maa ngi gën di màtta sama ndaw du jóg fu ñuy fayee tur jëm bu man du am ba mbub benn la fii day bolli bolli daw di xël di xool di sëf di rom ñaar ay di xaar naf si rey bakkan bi sax son yi mënul si ñaanal mu gudd fan rek am naa kattan bi ñoom dañuy saxaat tàkk guñ yamal sam booy tàppetuñ gën leen taxaw léegi bàyyi toog ni kuñ rof baakatuñ fi ngeen bëgg a dem falaa bi tëjal sa laa seen rab amul rendement ni ku mere pës def balaa ni bi doon jaaga sañ naa ne maamali bi si ins yëpp lay rab rek ton plus jaas arène bi yee bomba claat nangul busik doon sa craat mun a lu dul bàkku ak lew toobu yàgg comme ba pat mais bu jee am toor feros naa feebar si rab flow bi moo ma laa tëës ma duggoon safara safaraay wax daañu la forcé ba sonn bàyyil rab bu dee dalaa tëx xàmme woo janj ak joor yàlla ngay jaawaleeg malaaka every fucking day ñoo ngi kon ñu nga bëgg a fayoo naka wéeroo ay dama teel sama gaay dégg bi mooy tës soo bi éco trip la dañ bëggoon dañ bëggoon dañ bëggoon wane suñu tàngoor di quoi foofu léegi je pense que dañuy teg comme instant yii nii guddi na tag ku si nekk xam naa que ni am na loo war a defi je pense que dañuy déglu benn son après ñu ñu tàggatoo quoi. yeah je pense que dañuy déglu benn son après ñu tàggatoo quoi pour instant yii nii temps bi xoj nañu et tout mais tamit maa ngi remercier nit ku nga xamante ne ñoom gën a jege. yeah yeah balaa loolu sama gars yi ak passe bi tàccu ma leen quoi. ay nit yoo xam ne la dañu ànd ak dañu ànd ak man taxaaruñu dara si man quoi genre lu ñuy def dañ koy def ak yéene chaque jour chaque jour ñoo ngi rey seen bopp si man te defalu leen dara quoi lool loolu nekkul lu nekkul lu yomb quoi sama gars yi jaajëfate respect. xam yàlla nag pexe day jeex fi kenn suuf sa bopp daa am ñu aay am ñu nga wax dam yàgg la xaar nañ baax si léegi man ngeen ma kenn mi laa mel foog dee ma lu may dundee di sax si baamel yéen a ma ko daal su dee toog di balbal foog yóbbante galgal yow la Pablo tamit dégg bal waal ñu bu ñu mirage ba ba fële lis ñu xaaj xaaj baat bu génn ci benn dëkk fële teel a fii ñu jaaj ñu buy taal dañuy gën a gis. taal ngeen ku ñu taal léegi man léegi dëkk doon nañu léegi jàll fekk teel a gën jëloon ñu jës naa ne léegi perte naa la gën a doon jàll fekk teel a gën jël fekk pàcc ñu kenn ku nekk ñu dara taal mbir yow si jiw ba ne wane ni jàng na seen sa filo nga ñàkk seen mooy tax nga mën fi ñëw

waxtaan des communes Thiès télé bi ay Kouthia ngeen ay Kouthia ngeen ay Kouthia ngeen Kouthia ngeen ay Kouthia ngeen ay Kouthia ngeen eh, jaajëf sama gars yi eh, sama gars yi bi mooy fin